li mu càq-càq yi nekk fii ci Dakar di gën a takku bés bu yàlla sàkk ca rond-point pompier lu war a toll ci fukki ndaw taxaw fa ak seeni jakarta di xaar ku mu yóbbu fii nag ñàqare bi benn la li leen dawalkati taxi yi di teg ci tali bi. waaye taximaan yi solal nañ doom yaay. taximaan yi duñ la may dara. foo génn ñu bëgg laa fenn. sama moto bépp yàq nanu ko. maanaam ñoom lan la ñu ñu sàcc wala. ñoom lu ñu bëgg. mais yàqu nu taximaan li ko yàlla jox rek la ñuy jox ku nekk sa war a saag. Modou di beneen ndaw buy dawal Jakarta jàpp ni taximaan yi dañ leen war a nangul ni seen liggéey nañu nekk. waaw nga fii moom àddina la ku ne li sa wërsëg rek ngay am doo am leneen lu dul sa wërsëg daa may dégg kon tey jii ñoom duñ xëy am seen 3000 ñun ñu xëy am seen 2000 dañ koy sant yàlla ko waa xam na moo gën moo gën xëy bañ am dara. yooyu wax taximaan yi dàq ko ba mu set Abdou di kenn ci ñoom xam na ni amul dara ci wàllu yoon. lu may càq-càq yi di daw. càq-càq yi daal xoolal lenn loolu la bokk ñu libéré ñu bàyyi gars yi liggéey liggéey da nga am kayit normal yoo xam ne xoolal bu ñu laajee demoon na lii waaye càq-càq tey bu ñu bu ñëwee ak taximan bu ñu amee problème léegi li mu wax taximan bi la ñoo ne ko taximan bi day fekk càq-càq amul benn pièce boo xam ne moo def constat moo ta def dara boo ko waajoo tey moom mooy perte. dawalkati càq-càq yi ci Dakar. nekk di ñaxtu bu baax li ñuy dund ak taximaan yi ci tali bi yàq seeni moto wala ay gaañu gaañu sax mu bari lu ñuy jote ak chauffeur si ci seen wàll chauffeur si jàpp nañ ni cag-cag warul def transport ndax amuñu ay këyit